الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk Italie daara la daara bi li ko tax a jóg mooy jàngal soo jàngee jàngaleel xamal soo xamee xamleel lu ñu xam bokk kook mbokk yi luñ ci lent ñu jokkook ñoo xam ne ñi ñoo ñu raw àlluwe ñu tontu leen ci li ngeen ñuy laaj wala lu ngeen di lu ngeen bëgg xam ci mbirum diine la ñuy wax surtout dañu bëgg nag mooy tegu ci ahlu sunna tegu ci kitaabak sunna ci tariqu salafu saalih mooy yonent bi sallallahu alayhi wa bés bi mu génnee àdduna diine jooju mu fi bàyyi woon boobu la ñu bëgg topp ci boobu la ñu bëgg tegu lépp lu wuuteeg loolu képp kuy woote leneen ñu ne yow la ñuy wuute yoon lii moo ñu tax a jóg ku ci bëgg nag leerlu wala nga bëgg bokk ci groupe bi mun nga jokkook ñii ci numéro téléphone yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu منهج السلف والدعوة إليه ويتقو يونو مغنو باحني يسلف الصالح أكووتي سيسين يونو أهل سنة والجماعة سلف الصالح تا القرآن السنة تاكو تكوسوف كان نكون فهم نكرن نكتش تصل دارو سنة برام سبحانه وتعالى لن يشوف إلى مثل ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان فهو على نحو كيف خلي لي يعني ووتي قبل ينقلون ووتي أكي صحابة التابعون يا نتا تفلن كنا وتعلم جوكت لأن كوكو لي نخلي موم من يجي خلو من يجي يونس ولا صالح رضوان الله تعالى عليه